وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين بوكي غنا بني سانتا يالا بور سبحانه وتعالى دي جول تي يونتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغي لين دي نويو دي لين زياره دي لين يانال جام دي ساكو نيان تي دي لين بالحق دي لين بالحق te ñaan yàlla sun borom subhanahu wa taala mu booleenu jëggal suñuy xaq yi tax suñ diggante ak moom ak suñuy moroom jam di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci liggéey bu am solo bi muy seen seen youtube bi di le grand secret en wolof di fas yéene dellu si waat ak yéen ci benn njëriñ lu mag lool ci suuratu sarxi di sar bo xamne sar bu gàtt la manam guddul te neex mokal lol muy alam nasrah lak sadrak mu nek sar bo xamne sar bu yemi la bu ko defé ñu fas yéene ci andag yéen tay ci lo xamne nit ki nga xamne dafa am yitte ji ko <coughs> jaaxal walla mu am aajo wala mu am lu muy yittewoo ba ci sax ku bëgg am boroom kër walla mu bëgg am soxna wala yitte ju mën a doon bëgg yàlla sun boroom may ko ko yàlla mi nga wax ni moo wax ci alxuraan ne yaa ayyuhan naasu antumul fuqaraa te yittewoo yàlla sun borom subhaanahu wa taala dellu wax ci astajib lakum ñaan leen ma may leen moom yàlla moomu bind wàccee alxuraanul karim muy ay waxam muy wax ji gën ci kaw suuf alxuraan nekk loo xam ne benn xaraf alxuraanul karim moo gën lépp lu new ci kaw suuf ci kaw suuf benn xaraf alxuraan moo ko gën kon la ca ne ci ay yiw ak barke kenn xamul lu mu doon suñ borom wax ne maa farat na fil kitaab min shay'in tey nag ñu bëgg a ànd ak yéen ci ci benn secret bu am solo incha allah ko nga xamante ni dafa am yitte bëgg yàlla suñu borom fajal ko ko na ko defee nii ñu koy waxee waaye ñu ngi leen di présenter mbokk yi ñu ngi leen di présenter sunu chaîne YouTube bu bees bi nga xam ne mooy les meilleurs secrets nga xam ne meilleurs secrets yi moom foofee lañ koy dugal fii tamit fii la ñuy dugal grand secret waaye meilleurs secrets yi les meilleurs secrets lañ koy dugal lien chaine bi nag mi ngi nii ñu teg ci description bi. soo xoolee ci description bi mooy lien boobu ngay gis les meilleurs secrets ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen daal di fay abonné incha allahu taala kon ñu jublu. soo koy def nag dangay jàpp ba sell <clears throat> da ngay jàpp ba sell toog toog jublu penku jàng suuratu sarxi 132 fois suuratu sarxi 132 fois nga koy jàng waaye nag saa yoo jàngee lu toll ci fanweeri ñett maanaam 33 fois yoo jàng da ñaan. sa yitte sa aajo da nga koy ñaan daal di eggali saar bi defaat noonu boo àggaatee ci 33 fois nga daal di ñaan yitte ji ba ni nga koy matalee 132 yi 132 fois lañ koy jàng waaye saa yoo koy jàng ba am 33 alam nasrah taxawal nga ñaan sa aajo daal di tàmbaliwaat sa 33 ñaan sa aajo daal di tàmbaliwaat 33 ñaan sa ajo ba nu muy àggee 130. te deux su ko defee nag su demee ba lépp mat 132 yu mat nga daal di julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam feddaliwaat aajo jooju yi nga xamante ne moom nga doon ñaan incha allahu taala ma baamuwaat ko dangay jàng alam nasrah laka sadraka téeméeri yoon ak fanweer ak ñaar waaye dafa am niñ koy jànge dañ koy xaaj par fanweer ak ñett par fanweer ak ñett fanweer ak ñetti yoo jàng nga taxaw ñaan sa soxla daal di tàmbaliwaat defaat fanweer ak ñett muy muy muy sosa muy kii soixante-six nga daal di ñaanal sa aajo defaat fanweer ak ñett muy quatre vingt nga ñaan sa defaat fanweer ak ñett après nga daal di ñaanal sa aajo daal di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam incha allah taala feddaluwaat ñaan gi ci gàttan sun borom ñu ngi leen di jaajëfal baax di leen jox dig daje bi ëllëg di leen fàttali bayre njaay bi nga xamante ne képp ku yëngu ci wàllu commerce war nga ko am bayre njaay bu am solo la képp ku yëngu ci wàllu commerce te bëgg client yi di la ñëwal waxtu wu ne di jëflante ak yow moo xam loo mënti jaay te bëgg ay client war nga ko am ku ko yitte woo wooteel ci numéro boobu incha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu